bi hubbihi liya wa hubbi suwara sahida seede na lii ma seedel na ma allahu yàlla wa asada ta seede na sax alwara mbindi fi bi hubbihi ci bëgg gi nga xam ne moom lu bëgg lii ñeel ma wa hubbi ak sama bëgg asura asura saari alqur'ani nee yàlla njëkk a seede moo ma seedal mbindee ma ci bëgg gi ma bëgg waaye ak bëgg gi ma bëgg alqur'an bëgg gi ma bëgg alqur'an nee na yàlla ko seede mbindee ko waaye yàlla itam bëgg gi mu ma bëgg kooku yàlla seede na ko mbindeef yi seede ko loolu moom defe naa ñëpp xam nañ ko sax bëgg sëriñ bi yàlla ni mu ko bëggee ah ak ni ko sëriñ bi bëggee waaye nag ak ni mu bëggee alquran loolu mbindeef la yàlla rek mi gis lépp seede ko waaye mbindeef yi sax loolu moom ñëpp ko seede nit lu muy añaan añaan sax loolu seede ko moo tax man sayida seedeel na lii ñeen ma alaaw yàlla waa asxaada te seede na ko sax alwaraam bi def bi hubbi ak bëggam lii ma wuhu bi ak sama bëgg as war a saari alquran xaajat gësam na yëngal na xasaayid idi samay xasaayid xuluuba saaliina xoli way baax ñëpp te way xudu dana womat ba faw lii di ma jox allahu yàlla suxuli samay laaj muy sama soxla mooy muy samak pajuk aajo kullahin bépp jamono nee na samay xasaa idi dañuy yëngal xolu ñu baax ñi yonent ya awliya yi malayka yi abdal yi nuqubaaw yi nujubaaw yi ñëpp ñëpp ñëpp ku baax rek ci saali na nga bokk nee na sama it day tooy sa xol fu ñu koy jàngee da koy tooy foo ko liiree itam day tooy sa xel day tooy sa xol fa tabarakallahu sa xel itam tey ca ngir lan mbind mii da ngay xam ne mbind mi li yàlla di wax ne alquran direct ci yàlla la béy ko waaye xasida yi itam direct ci alquran lañ béy ko si tansilun min hakimin amidin maa yuqaalu lakka ila ma qad qila rusul waaye xasida yi itam na la wóor na ci alquran lañ béy ko mooy soo ko liiree doo am sikk ne la ak ko bind mooy kan moo tax ne a la wax nag amul bii amul baax xasaayid la wax xulloo ba saalin xoli way baax ñëpp yàlla lii ma indil di ma jox rek ci xasaayid yi may taalif ma yëngal xolu la ko yàlla di fayee soo bindee luy yëngal nit te di ci jaamu borom yow mi ko bind yàlla dal ca fay moo indil suxal sama pajuk aajo kulli yin bépp jamono raafaxa nii ñu ne ko ah waaw yow yow yow yow jaaxal nga ñu looy bindee yow da ngaa ànd ak yàlla mu lay ilham wala nam daan def Xasan ibnu Saabit yebal Jibril wala nanga lam daan def yonent bi di ko ilham wala nam daan ilhamee ay ay ay xaritam moom yàlla noonu la lay def wala mu ne raafaxa nii lu yëngal xolom malaaka gay xam ngeen ne loolu dëgg dëgg dëgg cërëb yàlla dugg na ci waaye du nit rek déedéet mais raafaxa nii àndante naag man ilhamu ilhamu yàlla wa tawfiqu ak dëppaleem maanaam fu ne su bindee maanaam yàlla ni ni ni ni ma ko war a bindee rek noonu laa ko bindee du am lenn luñ ci gëstuwaat di ko seetaat ci wàllu nox bi wala arot bi wala ci bayaan bi lépp ceeb maani bi léppay dikk parce que yàlla moom ma ko ilham alquran mos ngeen di dégg ñu ne baat bii ci yàq nañ ko jagalaat mukk ci yàlla bay ko amul lenn luñ ci critique laa ray ba fii hudan lil muttaqin sëñ Tuubaa ne sama mbir noonu la mel raafaqa nii àndante naag ilhamu ilhamu yàlla wa tawfiqu ak dëppale mi man ma nga bàyyi ko ci yàlla ma nga xam ne huwa moom alxalifatu mooy sama xalifa arafiqu tey sama àndoor nee na dama ànd ak ilham ak tawfiq tawfiq gi ma am ba tax yàlla di ma ilham di ma defal ay tawfiq ndax waxoon ne yàlla ku ma ilham rek dafa nar a tawfiq dëgg-dëgg tawfiq yaa mulhiman xat wa faxaa nee na yow aji enkwal ji nga xam ne yaa ma defal tawfiq kon yàlla ku muy enkwal rek dafa nar a tawfiq tawfiq gu gën a rëy mooy loo defati yàlla la ko enkwal loolu tawfiq dëgg la ma doon raafaxa nii àndante naag man ilhamu ilham wa tawfiq ak dëppali ga mi man ma nga bàyyi ko ci ka nga xam ne moom alxalifatu mooy sama xalifu arafiq tey sama àndoor mooy ji mooy kuy ñëpp waaye rahimu naa mooy sunu yërmande ëllëg yoma xiyam ji mooy ña ko doon jàmm xalil yi mooy sama xarit habib yi mooy sama soppe moom kan al mukasir mooy aji bëril alxalil lu néew mooy fekk lu néew mu bëril ko mooy fekk lu néew mu barkeel ko ba ñëpp man cee jëriñu koo koy borom bi tabaaraka taala nee na yàlla mooy sunu yërmande adduna ji moom lay jëflante ak ñun ñëpp moo leen di xéewee waaye mooy sunu rëy mu ëllëg yam la xam ña koy yaakaar mu bëgg mu dugal leen ca moo leen cay dugal kon wane na moom yaakaar na yàlla ci raxmaanum ak rahimam yëpp waaye mooy sabab xarit moom yàlla di sabab soppi mooy ki xam ne mooy kii bëri lu na moom yàlla moom nag man naxa tere na mooy lànk man naxa tere na maa xalaqahoo lépp lu bind yàllaa ko tere aw wala yaxluqu mu bindees ko maanaam dafa jublu wax na rek lu yàlla feeñal ci jamono ji ma wax ak yéen ak lu mu mënati feeñal ndax wa yaxluqu maa ma ta'lamuun yàlla nee na danaa bind lu ngeen xamul waaye loolu la ci yàlla jublu rek mooy jamono ji rek damay feeñal loo xam ne da leen di jaaxal day wuuteeg la ci ay awliya yi ci ay mujisaat ci ay kemtaan ci ay jamono ji nekk yàlla koy feeñal yoo xam ne bokkut ak yow weesu woon moom ay karaama gis nga ay karaama mi feeñal ci awliya yi kon yàlla jamono ji nekk ma tax ne mën na xa lànk na maa lépp loo xam ne xalaqahu moo ko bind aw yaxluqu wala xawees koo bind mooy lu mu feeñ rek ak lu mu feeñal gut ñoo ci am mux yàlla muy aji doylu ji ilal jinaan yi ba ki rek may tabi aljana kulli sama lépp yuttuliku ko boyal moom yàlla yàlla sama lépp da koo boyal fu ne man dañ maa ittilaax daf maa dañ maa defal xet xud mi na naari waaye defal ma ittilaax mooy ko xam ne dañ laa goreel waaye loo defate rek saf na yàlla jégal na lu ko nag lépp lu yàlla sàkk lépp lu mu feeñal wala mu di ko feeñal loolee yàllaa ko tere sama wàll ba du ma mën a lor du ma mën a yàqalati du ma mën a jur du ma mën a kókkali wala defal ma loo xam ne daf may jural ak bakkaar déedéet daal ne damaniya boole na albaqi yàlla mu fee sax ba faw boole na ma li ahli badrin ci waa ahlu badar wa kaana te nekkal na moom yàlla lii ñal ma bihim ci darajaay waa ahlu badar wa ahlaa te yëkkati na sax xadri sama daraja ñu ne yàlla moo ma boole ci waa ba badar ba noppi nekkal ma ci seen daraja ba noppi yëkkati sama daraja sax ci seen daraja ñoom mu ne askuroo sant naa ko bil xarakaat samay yëngatu yëpp wa sukkooni ak samay dal wali ñeexal na ma mooy nekkal na ma bii ci moom yàlla fi abadan ci luy sax ba foofu ci lan kun ci baata kun fayakun mooy yàlla nekkal na ci baata kun fayakun lu ma bëgg rek yàlla day jëflante ak man ci baata kun moo tax ma ne wali bii fii abadan kun fayakun nee na sant naa ko samay yëngatu yëpp ak samay dal yëpp ndax su ma yëngatoo wala ma dal yëpp ci am ñoo bokk ñoo bokk benn atti fa yàlla lu ma soxla rek su ma ko yëngatoo wala ma def ko yëngatu gaak dal gaa ci am yàlla daf ma koy defal te sans ci kun fayakun moo tax ne wali nekkal na ma bii moom yàlla fi abadan ci lii sax ba faw kun fayakun ci baatu kun fayakun nafaani jëriñ na ma wa qaadata wa mat na lee ñal ma asuura saari alquran yi wa asaadata moo seedeloo alwaraam mbindeef yëpp bi saadee bi saadatee sama texe man suñ tuwaa nee na yàlla moo daj leen mbindeef yëpp seedeloo leen sama texe yàlla moo ko def mbindeef yi daa dina jëriñ na ma ba noppi waaye dafa wa mat saari alquran jox ma alquran yëpp waaye ba noppi wa asaada mu seedeloo alwaraam mbindeef bu ci génne kenn nag kenn bi saadatee sama texe mu del di jëlaat beneen saxu ramadan ne saxu ramadan sakratillah jumaada luula ala nabi sukran kafa dalila